yow doo wute ab dël rabbana wa aatina maa waadtana ala rusulika wala tuxzina yowma alqiyamati innaka la tuxlifu lmiyaad rabbana wa aatina maa waadtana ala rusulik wala tuxzina yowma alqiyamati innaka la tuxlifu lmiyaad xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa wax ana woorkat yi ñu di jukk dugg ca bunt ba ba ci ki mujj ci ñoom bu ko defee ñu daal di koy tëj xadis bi buxaari ak muslim nettali nañ ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna fi ljannati baaban yuqaalu lahu rayaan yadxulu minhu saaimuuna yowma alqiyaamati laa yadxulu min maahum axadun gayruhum yuqaalu ayna saaimuun fa yadxuluuna minhu fa ida daxala axiruhum uliq falam yadxul minhu ahad rawaahu buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtoon dana tàbbi cinq heures quarante cinq juróomi waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom tisbaar treize heures trente sept si benn waxtu bu tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar takkusaan seize heures trente sept ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar timis dix-neuf heures vingt et un juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak benn gee vingt heures trente-deux juróom-ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñaar loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak li ko wër bu fekkee ne ko Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yi na wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yi na yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètres yi na yokkal benn simili jant bi dana fenk 7 heures 3 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñetti simili di so 19 heures juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-ñaar waxtu jàpp wi mooy waxtu yu ñuy bàyyi xëdd 5 heures 37 juróomi waxtu la yu tegal fanweeri simili ak juróom-ñaar waxtu dog wi 19 heures 21 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak benn yàlla na yàlla nangul te nangul leen amin